yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi naafila guddi fukkeel gi ak ñaar ci weeru koor sopp nañ ko ci julli fukki raka raka bu ci nekk mu jàng faatiha benn yoon jàng qul huwallaahu ahad juróom benn yoon dees na ko ca wutal ci àjjana juróom-ñetti junniy soxna te des na ko boole ci dëkkandoo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te mel ni nit ku jàng tawraat injil zabuur furxaan te it des na ko jéggal bakkaaram yépp lu mu bari bari doonte dafa tonni du géej gi